musulu ci seytaane bu baax a baax a baax di sant bu wér sunu borom subhanahu wa taala di julli ci sang bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu kilifa yi ci barab bi yépp di ko doore ci imaam yi ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sabt di nuyu njobootu Seydi Hadji gi fi teew yépp ak gi fi teew ci kanam di nuyu njobootu suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba di leen nuyu ñoom ñépp di nuyu kilifa diine yi ci réew mi yépp di ci boole njobootu maam Amari Ndak Seck bu Thiénaba ndax dañu maa boole ñu bokk ci njoboot gi ñu ànd ak man maam Momar Talla Seck jiite leen ñoon ak man ñoom ñëpp maa leen di nuyu di leen ñaan ñu jéggal ma jottalin ma ziyaar suñu kilifa ci dëkk yooyu yépp ma lim léegi di ñaan yàlla bàyyi leen ci sunu kanam lu yàgg a yàgg a yàgg te wéral leen njariñul réew mi lañu sagu réew mi lañu yàlla yàlla fayal ñu leen di nuyu Monsieur le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Monsieur Oumar Gueye mi nga xam ni moom la fi président de la République son excellence monsieur Macky Sall yebal mu teewal ko fi moom délégation bi mu àndal yépp te ñu lim leen léegi di nuyu l'honorable député maire Ngagne Diop di nuyu l'honorable député Aymerou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di nuyu l'honorable député Mously Diakhaté sunu sœur di nuyu doyen Alaaji Pouy mi nga xam ni médiateur de la République maître Alioune Badara Cissé moom la yebal pour mu teewal ko fi at yi yépp at mu nekk dina ko yebal mu teewal ñu ngi koy gërëm di ko sant ñi ngi nuyu daara ji sëñ Maodo ak ustaas yi mu seqal daara ji yépp ñu ngi leen di nuyu mu ustaas Sow yàlla rek moo leen mën a fay waaye nag sunu xel dal ndax sunu waajur bi fi jógee ñaanal na leen ñaan goo xam ni amuñu ñaari xel ci ni yàlla dina ko nangu ba def ci lu weesu njortam moom ak sunu njort ñun ñëpp li ngeen di sonn ci daara ji yàlla na leen ko yàlla fay ndax yàlla rek moo leen ko mën a fay di nuyu nag képp ku fi teer di sant bu baax di nuyu sunu xarit Abdou Aziz di nuyu alaaji Adi li nga wax fii ci loo xam ni man ak ñi ma bokkal ñépp dañ ko yoreel ci ngërëm famille sunu waajur alaaji Amadou Gaye yàlla seede na ni bi nga koy wax ñun ñépp ñépp ñu ngi lay ñaanal ndax dëgg bu wér péng moo nga wax yàlla yàlla fayal mu yooyu tam monsieur le ministre wax nga béréb bii moom amuñu béréb bu ñu bokk na ci amul benn bërëb bu ñu gën a fonk xëy na am na yeneen yu ñu fonk ni ñu ko de waaye nag amul benn béréb bu ñu gën a fonk béréb bi am am na nag béréb yu bare bari yu ñu fonk lool lool lool li taxit lenn rek la de jaam ci kaw suuf lenn rek moo koy dimbali nit ku koy teg ci yoon ba mu bañ a réer ci àddina nit ku koy teg ci yoon ba mu am ngërëm ëllëg alaxira leneen lu nit wut lu dul loolu rek te nag béréb bi loolu la ñu fiy jàngale loolu la ñu fiy wone loolu la fiy wut si sunu waajur ci boppam Alaaji Amadou Gueye ak dundam yépp dundam yépp ñi mu jural boppam di ko yàlla may ci njaboot ñoo ñu gën a xam ñun ñëpp waaye ñun ñi yàlla boole ci njaboot tamit xam nañ ko bu wér dundam yépp jaamu yàlla la ci topp li yàlla digle ci alxuraan ak jëf ci doomu aadama yi ndax yàlla boo koy liggéeyal ci doomu aadama yi nga koy liggéeyal tam defar leen ba ñu doon ay nit dundam yépp li ko waral ci alxuraan digganteem ak yàlla def na ko ba sëkk ay kilifa ci réew mi seede nañ ko alaaji abdu ku nekk xamoon na sunu maam alaaji abdu aziz daa baax ku nekk xamoon na digganteem ak moom mm-hmm. ku nekk xam na seedeem ci sunu waajur alaaji Amadou Gueye waaye waa réew mi yëpp nangu nañu ni addina mi dundam yëpp daf koo liggéey dundam yépp def koo liggéey te lu mu ci liggéey yàlla na ko dem ko ndax daaraam ji damay faral di wax bi nit jóge na Dakar dem fu sori wut fa yàlla waaye romb na béréb boo xam ni bu ko fi defoon am payu yàlla boo xam ni dina weesu njortal bu wér na bu wér a moo tax ma ni monsieur le ministre wax nga dëgg lu mat fanweeri at a ngi nii ñuy daje dëgg la te xam naa ni li ma fi indi moo la fi indi tam li ma fi li ma fi indi man di fi indi jaamu yàlla yi fi daje yépp moo la fi indi moo tax bis bi bis bi li ko waral li ko waral mooy ñun ñépp ñu nangu ni liy jariñ jaam mooy lu yàlla digle nga def lu mu tere nga bàyyi te nag bis bi loolu rek lañ ci bëgg di fàttaliku moom lañ ci bëgg di fàttaliku ngërëmu yàlla liñ ciy wut ñu ngi koy wut ci jéem a sax ci li muy santaane ñu koy def jéem a sax ci li muy tere ñu bàyyi rawatina nag rawatina nag bu ñu demee ba àddina mel ni mu mel ba ku nekk nangu ni damay faral di wax ni léeg-léeg nit mel loo xam ni ña koy ñay waxtaan ci ndir ko dajar ah kii de boo boo ko seetee ba ci biir nit ko jaar daara la bari na bari na ñu seedeel nit ju koy rafet ñu yokk ca ni ah boo ko seetee ba ca biir ku jaar daara la bu nag daara baax na de waaye daara nag daara moom daara da ciy ci xëy yeewu ci yendu ci fanaan ci maanaam daara dund la ak dund la du xëy dem ci école coranique ba rek déedéet da nga ciy xëy yendu ci fanaan ci suñu waajur nag mënuñu ko fay ñun man nag bokk naa ci ñi nga xam ni moom mënuñu koo fay ndax ni mu ma def ba ma yëg ci sam ma xam ni dimbali na ma lool man bu baax a baax a baax waaye nag ni nga ko waxee ma gërëm njabootam ndax bu saxee rek bu saxee rek ñoom te nag li gën a jafe ci wax nga ko léegi mooy yéwén ci daraja moo it nit ku mënal boppam lépp li ñuy soxla ci àddina li ñuy di soxla ci àddina nga jàpp ni yàlla dimbali na la ca ba nga mënal ca sa bopp ba noppi nag nangoo joxe moom la ñu def ñoom yàlla na yàlla yàlla na yàlla fay amoon na yu ñu sàkku ngir daara alhamdulilah wax nga léegi yu ci waaye ñu ngi dolli di ñaan di dolli di ñaan te loolu jarul sax ñu la koy wax ndax ni ma ko wax léegi fanweeri at yi ñu fi daje gis nañu taxawaay bi nga taxaw ci kër gi gis nañu taxawaay bi nga taxaw ci daara ji honorable député mairie mën naa ni alhamdulilah yow itam matu laa wax ndax maa ngi fàttaliku bi ci mujj mooy bi ñu dajee fii di jox xale yi jàng ba wàcc seen lijaasa keroog am na engagement boo xam ne jëloon nga ko fi bi ma ñëwee léegi lañ ma ni engagement ba matal nga yàlla yàlla sëy fii daal ku fi def sa bopp nga defal ku fi def te nag bu fi nit def dara ba naw la nga def bu fi nit def mukk ba naw la nga def bon ñi jàpp ci sunu bis bii ñoom ñépp ñu ngi leen di gërëm di leen salam jotu leen suñu cant son excellence le président de la république Macky Sall jotal ñu premier ministre bu gërëmal ñu service yi nga xam ni yépp sàkk woon nañu ci ñoom taxawaay muy gendarmerie di sapeur pompier di ministère de la santé maanaam ñépp ñu ñu ñaanoon daal ñu taxawuñu ci bis bi ñu ngi leen di gërëm ci li ñu li ñu taxawu ci bis bi yàlla nañu yàlla may nag li ñu fiy ñaan te bokk ci li ci jiitu jàmm ci sunu réew mi dama benn xarit boo xam ne ñoo bokk métier université dañuy jàngale mu dëkk ci benn réewu Afrique boo xam ni nee na ma li ko wóor te wóor ko moo di dëkk ba mel na noo xam ni ña nga xam ni yàlla may na leen dara ca dëkk ba buñ leen ni woon na ku nekk joxe si genn wàllu alal ji nga am ndax jàmm am ci dëkk bi ñenn ñi du ñu yem ci joxe genn wàll trois quarts la ñu am la ñuy joxe ndax nekk ci jàmm jàmm jooju nag yàlla yàlla def ci dënn ku nekk ci ñun li nga xam ni mooy tax jàmm jooju mën a am yàlla yàlla defal ñu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla li ñu ko teewee ren ni ñu ko ñaane léegi yàlla may ñu ñu teewe ko déwén ci réew mu nekk ci jàmm ni nga ko waxee rek ku nekk saa boo xëyee lay sa warugar ci réew mi nga am dal ak man-man boo ko defee ndax réew mi mi ngi ci jàmm ñi ngi sant ñépp di gërëm ñépp allahumma salli ala sayyidina ak góor que ñëw fii ñuy tracé benn jàkk i fii ci Darou Gaye bañ koy tracé góor gi jonn jool wax ni moo <coughs> ne day gént lu tax naka day gént mënatu ñoom jóge nag dem Bambilor ànd ak Modou Niang Modou Modou ànd ak Modou Niang ak Amadou Matar Mbaye bi nga xam ne mooy sama maam doon denc bi day jaay bi di jaay ak may jaay mbokk day bàyyi ba day jaay jur ala ngeen ko suñu bàyyi joobal mu ngi sol fii ci war bi ci mbët mbët waaw joobal moom ci ci bët lañ ko ne loolu am na góor gi Amadou Gaye ñëw ay jinne la woon ay jinne fi nekkoon ay jinne leen dàq ak i peer waaw lu wér laa leen di wax ay jinne fi nekkoon góor gi Amadou Gaye ñëw taab di fi ñaan di ñaan taab jàngu taal daara di jàngale alquranu karim fa tabarakallahu di tàggal rasulullahi Cheikh Sadil Hadji Malick Cheikh Sidi Abdou Aziz di di ko taxaw waaw ay jéeri ñu muy jéey tey dem na barzak bàyyi ci baax baax la baax ba dee baax na waaye dee bàyyi ñu baax it baax fa tabarakallahu moo di jërëjëf yàqe ma bi nga wut bi ngeen wutoo seen bàyyi kóot laay lu solo lii. bokk bokk na ci côté yi tax ñu nangu ni nangu ñaan. beneen bi ci des mooy na nga nekk nit ku baax sëfan ci ku baax nekk sëñ ku baax fu mu ne waroon ko mën a dégg suñu ñu bëgg a gërëm ak nit ñoo xam dañ fekk yow bala ma ñëw ñu jël gis bu tàkk ya nga xam ni xaatu moo nekk di gërëm sëñ Ab Jaay gis bu tàkk ya délégation bi fi yàlla te ka nekk ca boppa di sëñ Mbay doom jii sëriñ Moustapha Badiane ak sëriñ Yamar Seck ñoom nag réforme wala boog taxawaay yi ci taalibe ak kër sëriñam ñoo ko changé ci université costume ak cravate lan nga xam ne war mu ngi ji buub yi lan leen xam wax nañ ni njabootu waa kër sëñ Sidi Maxtar ñëwoon nañ ci tey ñu koy ñu leen di gërëm El Hadj Diouf doomam bi moo ñu ngi koy ñaanal yàlla maam Cheikh Fall mi ko représenté ñu ngi koy gërëm di ko sax ñuy gërëm presse bi ci seen taxawaay gis nañu une semaine avant lépp luñ ci def ci télévision lu rëy la ndax bu ko ki nga xam mooy kilifa ji santaane ànd ci ak professeur ñoom Cheikh di ko doxal ñu leen te wàllu communication ku bëgg a xool actuellement àddina ñu ngi gërëm nga jégal ma de. fàttewuñ leen de. mais comme comme ñoom ñu ngi feeg ñun. ba ba ñuy tàggoo. ba ba ñuy tàggoo. bala ñuy ñuy tàggoo ñu xam ne sant nañ la. ñu ñu wax kon deuxième sant ci seen taxawaay bu baax. di leen sant bu baax a baax monsieur le ministre ñu dem di la gërëm xam nañ ni waroon nekk Tamba tey la bàyyi ci ku ñëw waaye nag nit ku soxlaay bopp jarul dara jarul dara waaye boppam daf koy jaral dara kon ki nga xam moo war a mu ngi ci loolu gën moo mu ñaan. lu nekk ci wax ci jiw ay at at ci kenn bañ a waat Adja Moussi maa ngi lay gërëm bu baax di nuyu sa borom kër yaakaar sama yaakaar la ndax li mu am yaakaar ci sa kaw ci suñu kaw yaakaar ci moom yónni la ci bërëb te pas-pas boo bañee mu fekk ku da ngay fas ca kawam ñu lay jox kàddu tàllal suñu ndax ku mu bés fukki yoon te du la jàng na lu tàllale sa neex dan la jox kàddu moom kay yàlla wax ko di la ko jox ndax bii nga fiyee léegi ci ay kàddu di la ko jox ndax bët bu tedd ba nga jógee di la ko jox ndax bët bu mu am yaakaar ñaari yaakaar ñoo la daje ci bët ba nga jógee ak yàlla na ci yàlla neena dara kon sëriñ bi ñu ngi leen di gërëm di gërëm Cheikh Gueye ñii tamit ñii rak di xarit ñoo doon gërëmee ay rab ba pare. ونحن سلطان الله دخلت في كلمة الله واستجرت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحت من حولي ومن قوتي وتحسنت آمين يا رب العالمين آمين اللهم استرنا في نفسنا وديننا وأهلنا ومالنا آمين بجد وآمين به ذاتك فلا عين تراك ولا يمكن أن تصلي إليك يا رب العالمين وارشدنا عن الخير السليم بخبرك يا خوي متين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين